Futurs Médias 19h jot na ba teg juróomi simili euh, soir d'info euh, pàcc bu njëkk bi euh, tey jii la ñu ci dalal Pape Diagne nekk njiitu amicale faculté des sciences juridiques et politiques bokki tamit ci collectif bi ëmb amicale yi nekk ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm sëñ Pape Diagne. maa ngi lay bu baax soxna si. di la. di nuyu waale téléspectateurs yëpp. Hmm. jërëjëf jërëjëf alors Pape euh, tey ji la ñuy waxtaanee bokk na ci euh, conseil académique bu académique bu université bi ñu ngi dajee tey jile ngir wax ndax dañuy ubbiwaat université bi am déet ndax bu ñu fàttalikoo ci événement yi fi amoon juin am ay yàqu-yàqu ak ay jafe-jafe ci lañ jëloon dogal euh, tëj université bi def na ñeenti weer léegi nii ndax daje nañu ba noppi ndax am na dogal bu génn am déet. <laughs> waaw maa ngi rafetlu bu baax a baax question bi. Hmm. di wax ni conseil bi mu ngi déroulé ba léegi. ñu ngi daje instant bi ñu ngi daje ba léegi instant bi nii ñu ngi euh, réunir à l'université. 16 mhm. heures la xam naa ni bu décision bi génnee rek. Mhm. dinañ si xam dara incha allah. Mhm. waaw d'accord léegi nag comme ni ñu ko doon waxee sànq toog ngeen lu toll ci ñeenti weer defoo leen cours lan moo nekk conséquence yi jamono ji. waaw conséquences yi. Euh, ak tiitaange yi ngeen ci am surtout. effectivement euh, maa ngi rafetlu bu baax a baax a baax invitation bi. di fi jaar ngir leeral lu bare. Mhm. Euh, ndax euh, comme ni nga ko waxee léegi sa njëlbeenu kàddu quatre mois toog nañ ko université amul benn activité pédagogique. Mhm. loolu jàpp naa ni ci dëkk boo xamante ni euh, normal na loolu du lu jaadu. li ko waral nag laaj nga ma ko. Mhm. mooy événement juin yi nga xamante ni amoon na fa. ay perturbation politique moo menacé woon li nga xamante ni mooy ay intérêt étudiant ndax du woon dañ doon xeex wàllu social wala wàllu pédagogique comme ni ñu koy faral di gisee wala enseignement mais ñaari parti politique ñoo jotee amaana mu dem ba law ba taal ay enfi am ci ba taal ay archive am ci mm. mu doon lu ñu ñawlu lool ki nga xamante ni nii tey moo compétente muy autorité yi nga xamante ni tey ñoo nekk di réunir nii mm. muy conseil académique ñoom elles ont été contraintes de fermer l'université jusqu'à nouvel ordre sans pour autant ñu joxe dat ndax instant bi ñuy réuniru mhm. ñoom dañoo réuniru ni université tëj nañ ko jusqu'à nouvel ordre. mooy ci diggu juin bi ginnaaw mooy ci bi daanaka rek ay côté le 7. ci la ñu réuniru bi ñu réuniroo ñu tëj université. Mhm. terewul ñun représentant d'étudiants ñu gunge leen ci tëj boobu noonu ci naka. ci xamoon ni tëj biñ ko tëj. Mhm. ndax boobu am na étudiants yu génn commencé di ñibbi. Mhm. kenn nekkatu fa panique bi implanté wu na ndax it ay agression lu nekk mënoon na faa am biñ génnee dem ñun représentant d' étudiants yi ñu des biir université di négocier ak autorités yi ngir naka la ñuy defaat ba étudiants yi reveniraat ndax c' est ñu tëj université ndax politique te université loolu taxu koo jug. Mhm. jàng moo ko tax a jug bi loolu amee. ñoom bi ñu tëjee université bi ñu it ñuy xeexal étudiants yi ñoom ñu am format boo xamante ni dañ koo teg. kon jamono ji ñuy jël décision boobu yéen àndoon ngeen ci ak ñoom. déedéet jamono bi ñuy jël décision étudiants yi di ñibbi ñoom avant ñuy jël décision wu tëj hmm. université étudiants yi ñibbi nañ. mais jamono bi ñuy jël décision di dañuy tëj université. jusqu'à nouvel boobu sax ñun impliqué wuñ ñu. dañoo jël seen décision dañoo jël une décision unilatérale. Hmm. loolu wax nañ ko suñ ay communiqué. yu bare. Hmm. ni c'est une décision unilatérale alors que conseil académique bi ñuy wax ñun membre lañ ci ndax conseil académique bi euh, projet de règle de règlement la. Hmm. buy organiser fonctionnement wu université. mooy yëy ak a yàbbi ci li nga xamante ni mooy ni université di doxale kon instant bi am na ku leen teewal ci ndaje bi amul kenn ku ñu teewal ci ndaje boobu parce que dafa am collectif bu ñu jiitu woon mm. li ñu expliquer mooy collectif boobu dafa boycotté woon li nga xamante ni mooy conseil académique bi léegi pour que ñu rejoindre conseil bi mm. il va falloir que ñu bind une demande de représentation demande bi bind nañ ko nee nañ dañ see yeex a jog avant ñuy consulter conseil beeg yu demee noonu ñu nangul leen ko it ngir xam ni wax dëgg fa la ñuy décider incha allah du doon dara lu dul université bi dafa war a ubbi ci mois d'octobre bi nii. te ci loolu noonu ma doon wax léegi ci université dafa war a ubbi mois d'octobre du ñu d'accord mukk université. Hmm. ubbi sur le plan pédagogique te du ubbi sur le plan social. Hmm. ndax étudiant bi nga xamante ni nii tey mu ngi dëkk añam hmm. mu ngi dëkk euh, Ourossogui. amul mbokk Ndakaaru mu ngi dëkk Tamba. kooku amul mbokk Ndakaaru am na si ñoo xamante ni même bu ñu amee mbokk Ndakaaru. ku nekk xam na këru Ndakaaru yi ni muy demee ku nekk xam na ni it euh, euh, appartement yi nekk ci environnement yi gis na ni mu chéré. kon il faut que ñuy penser à l'étudiant vulnérable moo tax ñun ni ñun université bi dina ubbi sur le plan pédagogique dina ubbi sur le plan social. loolu exigence la. non loolu exigence la. Mm. loolu c'est une exigence. ndax loolu mooy li jaadu. mooy li may wax rek conseil académique bi ñi fa nekk ne ñu ci baree baree baree bëri seen ay doom nekkuñu université. université ñun ñii ñoo fa nekk doomu baadoolo yi. Mm. donc mm. kon il université dafa war a ubbi lépp di dox njàng mi ñëwaat ndax politique bi war tam mën a prédominer li nga xamante ni mooy le pédagogique. justement yaa ngi koy wax sànq ndax li indi jafe-jafe yi ba ñu tëj université bi c'est problème problème d'ordre politique maanaam politique kese la yoonu étudiants yi nekk ci du lu ñu doon xeex wala dara kon lan moo tax ñu jël décision bañ leen bool boole ci ndaje mi tey bi maanaam loo xamante ni yéen la yitteel ñu ciy jël dogal te dindi leen ci. waaw ils nous ont dit que y a une procédure à respecter. n'est-ce pas mais wax nga ni bind ngeen joxe ngeen. bind nañ bind nañ bërki démb. Hmm. ngir jox leen bi ñu ko bindee autorité bi ñu ko adressé mu ne moom il va falloir moom benn voix la yore il va falloir mu consulter ay ñoñam loolu it mën nañ ko ko d'accordal consulter leen. ba nga xamante ni dinañ accepté waat ndax. loolu dafa waroon am avant réunion tey bi. avant réunion bi effectivement ndax euh, même décret bi dafa xaw a am loo xamante nii day laaj interprétation. ndax waxuñu ci décret bi article 17 bi décret bi. ban décret. deux mille euh, deux mille vingt et un mille cent. bi régir bi régir li ma wax ni. fonctionnement fonctionnement hmm. université. d'accord pas décret boobu ñu ngi ko signé le 16 novembre deux mille vingt et un par le président de la république Macky Sall. d'accord boobu dafa ñoo jox ñaari sièges mais ci ñaari sièges yi ñoom leeralul sièges yi naka lañ koy repre naka lañ koy choisir. dan ni seulement étudiant waxuñu représentant d' waxuñu amical foofu la problème bi nekk. maanaam mën nañ il va falloir que ñu modifier waat décret boobu noonu. Mm. parce que étudiants yi déjà choisir nañ ñi leen war a taxawal. Mm. donc lu tax tey ñu mën a jël benn étudiant boo xamante ni c'est un étudiant lambda. Mm. étudiant boo xamante ni benn poste dans une amicale kooku sax war naa mën a dem représenté ji ci ci conseil bi loolu nag ñun mënuñu koo d'accord. ndax ñun la c'est pas bien réfléchi. ñu jëlaat benn étudiant boo xamante ni xamul sax lan mooy fonctionnement wu. amical lan mooy fonctionnement wala lan mooy jafe-jafe étudiant bu ko yóbbu ci ay conseils. nous sommes beaucoup plus informés. te ci loolu it dañ ni maanaam étudiant bi nekk première année wala ki nekk premier cycle autant pour moi première année ba troisième année. benn lay doon. ak benn étudiant boo xamante ni dafa nekk deuxième cycle wala troisième cycle mais kenn du nekk ñaari cycle hmm. maanaam mënuñoo jël ñaari étudiant wu master hmm. wala ñaari étudiant wu doctorant wala ñaari étudiant wu première année Hmm. alors gis nañ yeneen université publique yi lu ci mel ni Gaston Berger ñoom euh, reprendre nañu cours yi timidement université Assane Seck bu Ziguinchor tamit euh, également loolu yi tamit ban euh, xañ na ñeexital lay am ci yéen parce que yéen ñëpp ay université publique lañ bu ñu tëjee ñi bàyyi bii nii dinam am forcément ay conséquences am na ay crainte tamit yu ngeen ci am mooy mooy discrimination bi xam nga li ko waral rek mooy damaa jàpp ni ñoom dañoo tiit ci wàllu sécurité ñan te état ak ñëpp parce que li fi am nii soxna si lu dara lu dul politique. de tout bord nag te it lu ñuy naqarlu la ndax am réew bu ñu fa demee ba lépp politique bi ngar dàjjoo ko. kon problème day am nañ bàyyi mbiru politique génne ko biir université. maanaam mënuñoo tere nit ñi ñuy ñëw di def politique parce que université ay intellectuel ñoo fa nekk. Mm-hmm. mais nañ ko nañ ko nañ ko gën a nañ ko gën a ñàkk nañ ko gën a encadré. mais ndax du ci ña fa nekk ci la war a jiitu muy étudiant yeeg professeurs yi est-ce du ci ñoom la war a professeurs yi man gëwma ni am nay politiciens comprendre nga tey ku mu nekk am nga sa appartenance mais professeur bi dugg en fii du la wax lan mooy wàllu politique étudiants yi ñun étudiants yi nga xamante ni ñoo jiitee mm. amicale yi kenn du ci dégg ñun la voté diw loolu mënul nekk ña koy def faruñu ci ay am na sax ñoo xamante ñu ngi fay politique te doonu ñooy étudiant mhm. mais du question ay votel parce que parfois ko euh, am ci euh, sax ay gaañu gaañu du ci am ak yooyu noonu est-ce que tamit seen a sensibiliser aussi moo war a ëpp solo que wàllum politique bi c'est vrai que kenn terewul kenn politique bi c'est secondaire ngi biir université dëkk fa. kooku étudiant kooku université mu yàqu yàqulu ko. am na ñu fa dëkk te xam doon ñu ay étudiant te dañuy def politique kooku université bi mu yàqu ak mu ñàkk a yàqu la yemale léegi étudiant bi nga xamante ni moom jàngi wàcc lay def. wala parfois mu syndiqué wala parfois sax mu dem def politique kooku bu université yàqu da koy yàqule. parce que instant bi am na ñu bëri ñu ngi war a jot seen ay jotuñu ko. parce que administration a fonctionner université wax dëgg fa yàlla depuis mois rien ne fonctionne. Hmm, yi mooy lii ma la wax. Hmm, ak yan ak yan conséquences yeneen yan. am na étudiants yu war a tukki. exactement mënuñoo tukki. Hmm. ñoo xamante ni mooy relevé yi ma lay wax seen attestation yi donc dafa doon loo xamante ni nii vraiment c'est alarmant. te conseil académique boobu noonu war cee décider mooy li ma wax dañ leen a jox cër ndax dégg nga léegi ñun nous parlons en responsable dañ ni nous sommes des légalistes. nous sommes des intellectuels nous résonon en responsable mais conseil académique bi bu jëlee outre loo xamante ni ci intérêt étudiants yi la ñun ñu ngi woo ñëpp ñu wàcc sur le terrain wàcc biir université loolu nag jàpp naa ni wax dëgg fa yàlla moo war doon position bépp étudiant de bon foi ndax mbir mi doonatul ay mbiru mbiru mbiru mbiru mbiru liste wala mbiru dara mbiru étudiant yëpp la te ñun nag ñu représenté étudiants yi ndax dañoo dem ay élections ñu voteel ñu ñu gagné. Hmm. et nous les représentons dignement. Hmm. depuis le début nag jusqu'ici nous les représentons dignement. li jéggi intérêt étudiants yi mooy ñàkk a ubbi waat euh, campus social. waaye tamit ak euh, loolu rek mooy hmm. loolu rek mooy li nga xamante ni du. intérêt étudiant loolu rek mooy li nga xamante ni du intérêt étudiant. ci ci ci ñeenti weer yi lan ngeen doon def parce que ñu ngi doon wax tamit naan da ngeen alhamdulilah posé nga ma question boo xamante ni wax dëgg fa yàlla bëggoon naa lool même boo ma ko posé woon dinaa fexe ba <laughs> buruxal ko. <laughs> ndax euh, bi nga xamante ni autorité bi dafa jël décision. Hmm. ni day def ay cours en ligne ñun dañ ni déedéet mënuñu lu tax ñu ni ko ñun dañoo respecter li nga xamante ni mooy l'égalité des chances égalité des chances mooy yow. Hmm. yaa ngi dëkk Dakar man maa ngi dëkk dëkk boo xamante ni awma connectivité. connexion internet bi te nga étudiante nga man étudiant la hmm. donc chance bi nga am man moom laa war a am. léegi yow comment se fait-il que te cours en ligne mooy huit heures ba douze heures prof bi day def cours donc interaction day am. Hmm. prof bi suy wax da nga koy dégg. man it bu may wax daf may dégg. loolu bokkul ak cours asynchrone maanaam prof bi mën na def cours bi ba pare bàyyi ko fa nga ñëw récupérer ko. ñun ñu ni hmm. prof bi yooyu ñun ñu ni autorité bi yi ngay wax nii yëpp ànduñu ci. lu tax ànduñu ci. mooy li ma la expliquer ni la légalité des chances. biñ ko waxee ànduñu ci bras de fer am suñu diggante ak moom liens yi ñoom autorités yi ñu koy partagé ñenn ñi nga xamante ni suñu ay opposants lañ aussi ñenn ñi di manipuler. jël liens yooyu ñan ñan ngay wax seen opposant parce que vous êtes entre étudiants mais biir étudiants yi am na non biir étudiants yi am na y a des manipulateurs entre nous. mais l'intérêt devait être commun maanaam li ngeen di xeex wala li ngeen di xam nga taxawal tey tey soo nee ma l'intérêt devait être Sénégal tey intérêt bi doonul intérêt commun jëlal exemple boobu mais xëy na Sénégal moo gën a yaatu mais yéen ñi dem université jàng moo gën a yaatu mais université moo gën a compliqué moo leen fa Sénégal moo gën yaatu mais université moo gën a compliqué Sénégal soxna si ah, parce que vous dirigez que des intellectuels hmm. waaw wala déet ku nekk jaay sa morom xam-xam. effectivement léegi bi loolu amee ay nit jël liens yi. Hmm. dugal ko ci ay groupe WhatsApp. ni booy inscrire sinon yéen a ngi sacrifier seen ay avenir ñun ñu taxaw fi ñu taxaw autorité bi wax ñu ni ko duñ def cours en ligne mu wax ñu ni ko duñ def cours en ligne suñ ay assemblée de faculté réunir d'accord ni ñoom dañuy def cours en ligne mais dañuy def ce qu'on appelle la remédiation. Hmm. bu ñu ñëwee cours en ligne yi ñu doon def. Hmm. profit dañ ciy retourné waat def remédiation remédiation mooy def révision ci cours yi ñu defoon yëpp dañ ciy ñëwaat def TD ak TP def examen biñ ko waxee ñu nag autorité bi waxatul y in une rupture de dialogue entre le recteur et nous représentants d'étudiants. D'accord. Entre le directeur di COUD et nous représentants d'étudiants jusqu'à ce que nous avions demandé leur départ on est d'accord. Hmm. bi loolu amee ñu jël suñu téléphone ñu woo monsieur Omar Pène mu doon suñu ambassadeur. biñ ko woowee mu jéem a fexe ba ñun ak recteur wala ak autorité rectorale yi. ñu toog waxtaan xaatim benn protocole d'accord. loolu loolu je pense mu ngi doon ay côté le 10. Hmm. mais. Euh, le 10 lan. Euh, bon ban jàpp ma date bi. Hmm. mais il y a de ay deux à trois mois. bi loolu amee. ñu jël protocole d'accord boobu noonu ñu xaatim ko. recteur am lu ñoom lu ñu proposé ñun ñu am lu ñu proposé ñoom li ñu proposé ñun ñu bañ ko. mooy mooy dañu ni université bi nañu signé protocole d'accord bi mais duñ ci wax datu uni datu université kañ lay ubbi. Hmm. ñun si ñun ñu ni ñun duñ signé protocole d'accord boo xamante ni si aléatoire amul datu ouverture recteur wax ñu ay nit lañ ni protocole d'accord bi. mënta féete kaw conseil académique bi et il a raison. Oui. conseil académique bi ñoom ñoo waxoon ni pour université ubbi jusqu'à une date ou bien jusqu'à nouvel ordre. Mhm. bi ñu waxee loolu ñun tamit ñu ñu def bras de fer ak moom mais ñu signé protocole d'accord bi sous réserve ni ko vous avez votre parole. Mmh. nous avons la nôtre. yéen lan ngeen proposé li ñu proposé mooy. Mhm. danañ jël cours yi. sous format clé USB. ak sous format polycopié. clé USB nan lañ ko doon fonctionner mooy étudiant bu ci nekk sa localité bi nga nekk ndax am na étudiants yoo xam ne ay machine la ñuy jànge soo ko localité bi nga nekk danañ waxtaan ak sa président amical local. Mhm. bu fekkee dangaa soxla cours bi nga dem nga jël ressource bi nga retirer cours bi li nga ci soxla clé bu nekk cours université yëpp da cee nekk nga retirer li nga soxla ci sa machine nga jël. su fekkee amaana loolu arrangé wu la yoro machine. Mhm. ñu jox la polycopier. mais lii lan moo ko gën a simple ba nit ñi ku ci nekk di diaboliser naan ay clé USB ngeen di yóbbu pour étudiant bu nekk ñun amuñu amuñu temps boobu sax di jël étudiant bu nekk ñu lay jox clé USB ndax étudiant yëpp duñ étudiant yëpp ñoo am machine ba ñuy jox étudiant yëpp clé USB donc ay polycopie la ñu jëloon yóbbu ko. ci zone yi nekk Sénégal yëpp dafa ñu demoon centre. Mhm. am ñu dem sud. Mhm. dogalit ñu am ci ay jafe-jafe mais it am ci ay résultat ça nous a permis de connaitre beaucoup de choses. que mm. ni étudiants yi ñu ngi vivre dans la précarité. que ni étudiants yi ndakate ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi jugee ay 800 kilomètres di jàng si Dakar di jàng si Dakar donc étudiant boobu noonu ñun moom la ñuy xalaat. Mm-hmm. ba li nga xamante ni nii mooy. Euh, ubbi campus pédagogique sans pour autant ubbi campus social social donc ci protocole d'accord boobu noonu ah. bi mu amee mm-hmm. am na it ay tuuma yu tegu suñu kaw yoo xamante ni képp kuy gor ñu la ko waxee dina la metti mooy vous avez été corrompu par les autorités ça nous faisait très mal. étudiants yi ñoom ñoo teg tuuma yooyu seen kaw. waaw mooy opposants yi ma la wax rek mais. heureusement am na ñoo xamante ni xam na ni yaa ngi bañ politique université waaye langage politique rek ngay utiliser ay opposants non non non man li may wax dafa am. Hmm. man du ma tuumaal nit. Hmm. wax dëgg fa yàlla ndax xam naa ñaari ñan ñoo nekk fii. lépp lu may wax bugguma loolu ndax lu ma buggul nit def ma ko it duma ko def doomu aadama. mais ban intérêt la étudiant yooyu am tamit ci ci loolu. du moment où ni ñu koy waxee sànq ñoom jàng moom moo leen fa indi ndax xañ na bu amee retard ci jàng bi arrangé wul kenn parce que bu ñu demee bay xool du ñu ne du ñu tànn ni ñii ñooy avancé ñii ñooy ñii ñooy dellu ginnaaw xañ na bu amee conséquence yu négative ci ci kaw euh, ñëpp lay dal. dama laa bëgg a xamal ne la jàppal ni. Hmm. situation politique bi am Sénégal. moo am biir université bu ko gën a tar bu ko gën a metti parce que ay moroom lañ. kenn du nangu sa morom jiite la kenn du nangu sa moroom sax toog ak autorité bi ñun li ñu jiite nii dafa am transparence du début à la fin. Hmm. si bi ñuy signé protocole d'accord bi Omar Pène dafa toog ñu toog. d'accord autorité bi bi mu ñu proposé dañ ne ko clé yaa koy jënd sa xaalisu bopp daf ñu bëggoon a proposé que ñun ñu jël xaalis bi dem jëndal suñ bopp ay clé USB jëndal suñ bopp defaral suñ bopp ay polycopie utal suñ bopp oto ñu ni ko loolu noonu yëpp yaa koy defal sa bopp. jox ñu ko ba pare ba pare par mm. souci de transparence ba pare boole ñoo ay superviseur équipe bu nekk da ngaa am trois superviseurs yoo xamante ni administration mu leen yabal pour ñuy saytu liggéey bi lii lan moo ko gën a transparent mm. te lu tax ñu jël cours yi ñun nangu ko yóbbu mooy remédiation bi ñu wax étudiant bi nga xamante ni dañ ne ko woon mm. bul inscrire ci plateforme bi étudiant boobu inscrirul léegi ñun étudiant boobu ñun ñun dañ ko redevable lan lañ ko redevable mooy ki inscrire ba yor bi ñun kee dañ ko war a fexe ba moom it mu jot ci cours bi ngir bu mm. ñëwee mm. remédiation yi ñuy def moom mu comprendre mm. lii moo doonoon idée dem jël cours yi di ko yóbbu. d'accord léegi ñoom instant yi ñu ngi daje euh, fileeg xañ na ci guddi dinañ jël benn dogal. Mm-hmm. léegi yaa ngi ko doon wax sànq bu ñu jëlee dogal boo xam ne euh, dafa jéggi intérêt étudiants yi maanaam bañ a ubbiwaat campus euh, social bi pédagogique bi lan ngeen nar yéen. soxna si àdduna moom. buñ la tooñee maanaam boo fi nekkee naan yàlla baax na doo dem fenn. àdduna lépp xeex la xeex boo xamante ni nag nanga nga ko teg ci xel nanga ko teg ci yoon hmm. ndax it ku nekk jàng na diine suñ borom terewul fenn bul xeex hmm. ay ay ay xare am na fi xare ba dara yamaama fu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am num ci taxawee ba tey lislaam taxaw hmm. kon mbiru góor yàlla la bu ñu fa tollee ñu nar sacrifier ay vie étudiant ñu nar a sacrifier seen ay avenir ndax woote nañ fi ay sitting ñun police am nu mu def ak ñun matuñu woon douze personnes woote nañ fi ay point de presse matuñu trente personnes maam étudiants yi toll seen machine di wax boo leen woowee duñ ñëw man dëkkuma dakaar depuis quatre mois maa ngi dakaar collectif bi amul kenn ku ci dëkk dakaar depuis 4 mois ñoom ñu ngi dakaar am nañ suñu ay famille respective vacances lañ nekk mënoon nañ dem comme ñoom mais on a été élu c'est nous qui avions dit bu ngeen ñu doxee lii danañ ko doxal. Mm. tey lu ci mel ni fac droit. Mm. yàlla dogal seen chapiteau bi lakk. on avait l'idée à ce que ñu ñëw fexe ba sapito boobu noonu ñun étudiant fac droit ñu def ay collecte mais xam nañ ni buñ ko commencé état da koy bañ. ndax la non da koy bañ état du nangu ay étudiants di ñëw di construire euh, euh, euh, kii bi chapiteau bi. c'est mm. une défaite pour eux. c'est une défaite duñ ko d'accord mais ñun lañ mën as néew. tey boo duggee fac droit étudiant ba fa nekkoon bu duggaatee. dina gis ni ay tuuti changement dana fa am lamp yi boo ñëwee ci guddi gi day tàkk musu faa am. loolu ñan la étudiant étudiant yi la effectivement en collaboration avec certaines autorités donc kon il faut qu'ils nous respectent li collective bi di def de toutes les facultés nag et les écoles et instituts ah ma ne loolu du domaine kuddu hmm. maanaam dama ne hmm. en harmonie avec l'administration hmm. soit les autorités rectorales. Mhm. ou bien les autorités décanales. Mhm. ñoom ñu ngi ànd ak ñun di liggéey ci li nga xamante ni mooy jëmale fac bi kanam. d'accord tey mhm. suñu amphi boo fa duggee day tàng jër. suñu ay projet mooy amphi bu nekk ñu def fa climatisation ay climatiser ko d'accord léegi ba tey waxagoo Pape euh, très rapidement parce que benn minute rek moo ñu dese ci bu fekkente ni defuñu yéen li ngeen bëgg maanaam ñu ubbiwaat campus yi. mooy ras woon nañ étudiants yépp. kañ bu décision bi génnee loolu. à de des communiqués. da ngeen ndax man du man maay décider c'est un collectif. ku nekk da ngay respecter position ku nekk. Mhm. collectif la la majorité l'emporte. Mhm. n'est-ce pas mais saa yi suñu leen woowee. Mhm. nañ bàyyi seen yitte yëpp. ñëw fekk si ñu. d' accord kon da ngeen di xaar dogal bi tukkee ci conseil académique bi. incha allahu merci beaucoup merci Pape Diagne. merci merci jërëjëf may fàttali ni yaa jiite amicale faculté euh, sciences juridiques et politique bokk itam ci euh, mbootaay bi ëmb amicale yi nekk ci euh, université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax bonne soirée. jërëjëf merci pàcc mu njëkk soir d'info jeex na.